waaw wax ci góor gi yomb na yombul ndax olof njaay nee na nit boo ko waxalee lépp yaa ko catu mooy li may wax rek mooy nit la ku am personnalité d'abord jullit la ku bëgg réewam la ku bëgg famem la et social la loolu moom lu may seddale ci moom ndax ànd nañu maam moom ba taay lu dul lu muy def loo xam ne dañ koy gis ci hôpitaux yi yooyu lu mat mille kër mille laa la wax ñu ànd guddi maag moom kese ñu yëkkati enveloppe joxe yëkkati enveloppe joxe yëkkati enveloppe joxe dem naa ba benn instant dama doon yor bi nga fay di ko bind sax mun ma noo koy mu ne ko mu ne ma lii jarul bind jarul sax wax mais il fallait ma wax ko tey comme bon laaj nañ ma loo xam ne nii peut-être nit ñu bëri xamuñu ko leneen lañ ko xamal peut-être ci ci ay hôpitaux ay affaire man ànd naa moom ba taay muy def social te gis naa ni tamit ku fonk njabootam la ku fonk famille sama cousin la sama jarbaat la ñu yàgg lool avant dara ci xew mais ci paaseem nit la bu diggur bi mosoon gëm ni il peut réussir dans le sport te yàlla dimbali na ko ci tamit ndax gëm-gëm la woon bu dee œuvre sociale bi tamit te doon nañ ko def ñoom avant ñuy nekk muy nekk professionnel Kébémer loolu ñëpp xam nañ ko bokkoon na ci association boo xam ni ñoom ñoo ko créer woon di dafay œuvre sociale bi ko yàlla dimbalee tamit ba mu mën ko tamit yokk nag mu def ko benn fondation bu mag fondation moom à travers le Sénégal ñëpp xam nañ ko Kébémer bii may wax nii moom gën nañ koo xam sport bi nag euh, sooy xol nii lim ñu defar li ëpp solo mooy daf ñoo indil benn entraîneur de haut niveau boo xam ne tey sama basketteurs yi awma benn benn euh, équipe ci Sénégal boo xam ne nii ëpp na ma avenir nii sama terrain terrain basket bi je le président terrain basket bii nii euh, y a des coach boo xam ne moom moo ko indi jëlal ñu ko en charge di ko fay coach bi mu ngi jàngal boy basket boo xam ne ñun amuñu ko woon góor gi mii sax amul woon boobu donc loolu rek c'est former ay nit rek c'est lu ngand la ci yàlla wax beneen bi ci des man je le président mi ngi ci def lu mu mën à travers fondation bi sax la ma booleel ñu ngi ci euh, def lu ñu mën sooy xool ni équipe bi daaw jéeg demoon na tournoi sax pour monter première division kon donc ñu ngi ñu ngi filaa di ko liggéey góor gi nag wax ci tamit luy xaw a jafe la parce que soo waxee peut-être daan ni ah, kii kat cousin la euh, jarbaa euh, cousin la jarbaatam la ndax yàgg dafa dañu yàgg avant dara di xew li koy ñaanal laal mooy mu gudd fan Euh, lu mu mun a lu mu mun def ci lu baax tamit mu yokk ko. lii de xanaa mooy ndax.